tam liste boobee euh, Pape euh, wala sax dem ba Balde moom moo ko euh, jiite dañ ko rejeté woon préfet ba moo fa jaar ca département bi ginnaaw bañ doon amal dépôt yooyu léegi liste alors Fatou Abdou Ndiaye ndax mënuñu jàpp nag mbetteel la ci kaw validation candidature bu Cheikh Issa Sall mi ñu ne woon mënta dem ndax magistrat la. waaw parce que bi ñu koy wax loi bi daf ci leer loi bi dafa wax ne képp koo xamante ne da nga nekk magistrat ci conseil constitutionnel. Hmm. nekk magistrat ak cours et tribunaux yi euh, amoo sañ-sañ wala président de tribunaux pour samp sëndëndi ci élection loolu li nga xam ne mooy loi électorale moom moo ko wax li mu leeral nag xëy na bokk na ci lu bees loo xamante ne eh, ki demoon kalaame ko est-ce que amoon na toutes ces informations loolu moom mooy moom mooy laaj bi ndax na ne eh, ki samp ndëndëm di Cheikh Issa Sall mi dafa démissionné woon en 2020 comme ni mu ko waxee ba tax tey cour d'appel jox ko dëgg ma jàpp ne mhm. su fekkoon ne ba tey mi ngi exercer loi bi def ci leer nañ ñi amul sañ-sañ di exercer ba noppi nekk koo xamante ne dafay samp ndënam ci élection yi parce que ñu ngi wax ne ñu ngi fàttaliku atum 2016 euh, njiitu comité juridiction bu cour des comptes Ibrahima Traoré moom moo waxoon communiqué. Mm. ngir ñaawlu ñi nga xamante ne dañuy am engagement politique ba noppi doon ay magistrat parce que mm. warul nekk warul nekk benn maanaam mënoo nekk juge et partie yow waroo nekk koo xamante ne te yaa waroo àtte. Mm. ba pare nga bëgg samp sa ndënd ci ay élection kon loi bi leer na foofu li mu wax nag comme raison ba tax cour d'appel jox ko ko ma yaakaar ne lu am la parce que gis nañu quand même que ne boobu ak léegi kalaame yu bari yoo xam ne dem na ci cour d'appel Mohamed mm-hmm. euh, cour d'appel dafa rétabliraat ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition comme pouvoir ci seen i ay droit mm-hmm. euh, bu yi amee dafay baax également ñuy rafetlu mm-hmm. liggéeyu cour d'appel yi nga xam ne def nañu ko nekkul rek ne à chaque fois peut-être bu fekkee ne dafa jël dogal boo xamante ne neexul opposition ñu ngañ ko su jëlee dogal bu neex opposition ñu tàcc ko bu jëlee dogal bu neexul pouvoir ñu ngañ ko bu jëlee dogal bu neexee pouvoir ñu ñu bañ ko ngañ mu nekk ay juridiction yoo xam ne dañuy am solo ci réew et dañuy xaar ci yu mel nii ñu tranché hmm. li nga xam ne moom mooy dëgg pour le bien quand même des Sénégalais très bien alors euh, euh, Ndeye Dimbek ci jamono jooju itam le cours d'appel euh, bu Ziguinchor daal di validé bu liste gëm sa bopp ci conseil départemental bu Vélingara ndax lii du nasaxal liggéeyuk ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci maanaam autorité territoriale yi muy administration territoriale bi ci kaw li ñu rejeté liste yu bari waaye cours d'appel ni ko Fatou waxee ñëw validé waat liste yu ci bari bari. xam nga bari na ay liste yu ñu invalidé comme ni nga ko waxee. Mhm. mais déggoon nañu aussi ay appel yu nit yi nekk société civile euh, ñenn ñoo xam te ni ce sont des conseils départementaux des élus départementaux à l'image de Maodo Malick mhm. yu waxoon ni nañ leen may euh, une seconde chance tendre leen la perche su ko defee ñu mën leen a dimbali ñu mën a bokk ci élection yi. Mhm. donc tey bu fekkente ne ni dañu continuer di valider yenn ci ay liste yoo xamante ne ni au dañ leen ko bañaloon. pour que ñu dem ci ay élections. ci jàmm ak salaam. pour kaawu Issa Sall nag man doon na ma neex lool ma xam les motifs yu ñu joxe ba valider sa mm. parce que lii Issa Sall ci euh, gëm euh, ci ci ci benn bokk yaakaar foofu ci Mbour. Mm. bokkul ak yeneen situation wu parti politique de l'opposition parce que moom magistrat la. Mm. te euh, c'est vrai que code électoral bi am na lu mu tënk. leeral ci wàllu ñi nekk ci magistrature ak yu mel. Mhm. mais moom ñu bëri dañu jàppoon ni dafa nekk en détachement bu ñu ko defee ci agence développement local ñenn ñi di wax affaire disponibilité donc loolu ba tey ji nii dafa nekk benn flou boo xam ne man dama jàppoon ni dañ ko waroon leeral te moom Issa Sall mhm. man mosuma dégg fenn fu mu waxee ni bàyyi na magistrature. Mhm. génn na foofu mosuma ko dégg. Mhm. seetaan naa ñaari yoon ay émission yoo xam ne nii buñ ko ciy présenté dugal nañ ci mbirum magistrature waxul dara. Mhm. te dama jàpp ni tey su fekkee da nga nekk ci benn corps. ñu jàpp ni waroo fa nekk. kon boo ci génnee ba dugg ci leneen da nga ko war a fësal ba ñëpp xam ko. du mm-hmm. indi benn laam-laamee parce que fàttalikul Mohamed juge Ibrahima Dem. Mm-hmm. ba mu demee ba xool xam ne gisatul boppam ci koor boobu dafa génn publiquement wax ko ba pare daal di taxawal ab mouvement ensemble boo xamante ni nit ci loolu lay mm-hmm. doxal. donc dama jàpp ni tey euh, cour bi li mu dogal dañ koy accepter. nangu ko bien sûr mais lii tamit dafay tax su ëllëgee ñu jàngee ci. parce que tey magistrature nit ci dugg ci wàllu politique ñooñu tey mën nañu wax ni ñoo gàkkal deru magistrature bi nga xam ne ni dañu jàpp dafa war a traité ñaaxanaay ci Sénégal ñu wax ci leneen day demet soxal coow li lëmbee Sénégal jamono ju àddoo ngeen di teewlu muy euh, organisation Miss Sénégal moom boo mayul dina sax ci mim réew ndax ginnaaw sorti Miss Sénégal 2020 bi nga xam ne dafa wax ne dañu ko violé mu jaar ca jëlee ëmb ba sax am ca doom toll ci juróomi weer jamono ji waaye nag li ci gën a doy waar muy génn présidente bu comité d'organisation boobee nga xam ne ñëpp dañu ko ñaawlu réseau Siggil Jigéen moom mu ngi interpellé ci saa si procureur de la République mu daal ci ubbi bi ci nu mu gën a gaawee ab information judiciaire ñu wax ñu xam fu dëgg bi féetee ñu teewlu ci Sadio Abiboka. xanaa kon moom ñàkk na fayda <laughs> ndax boo xoolee ba nga xamante ni nii yow dañ la violé defe naa ni viol de ñaar a koy séq. ñu violé yow la neex quand magum jëm la de eh elle est kaddu yi Amina Badiane njiitum comité d'organisation Miss Sénégal yëkkati teg ko ci ki fi nekkoon Miss atum 2020 réseau Siggil Jigéen di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem ñoom di naqarlu kàddu yi nga xamante ne tegginewul teg ko ci jigéen ji nga xamante ne dañ koo sàkku toroxal ko ba mu jëlee ci ëmb ginnaaw bañ ko falee mu doon Miss 2020 Miss boobee nag doon Fama Dione lii nag doon ab occasion bu ñu sukkandikoo ci réseau Siggil Jigéen ngir dakkal concours Miss Sénégal bi nga xamante ne pour ñoom amul njëriñ foo képp la pervertir xale yi yàq leen ba pare def leen ay objet sexuel te loolee dëppoowul ak suñuy valeur waxantuma lak réalité sénégalaise ci noonu sax seen partenariat bi di CFAO Motor Sénégal daal di nay nangu oto yëpp yi mu joxoon comité d'organisation mi Sénégal ba pare daal di dakkal seen partenariat loolee lépp ngir ñaawlu kàdduy Amina Badiane moomee ci noone sax am na ab bu ñu lancé ci réseaux sociaux yi ngir ñu nangu licence bu comité d'organisation Miss Sénégal ci fàttali nag Fama Dione mi fi nekkoon Miss Sénégal atum 2020 boobee jot na fi ëmb ba am doom te ba léegi xamul kan mooy bàyyi doom ji ci noonu nag réseau Siggil Jigéen mi ngi ñaan na yoon daal di àddu ci mbir mi ni mu gën a gaawee. Sadio Abibouka situation bi ni mel dafa mel ni ab déclic ci ñu fa mës a doon jaar doon Miss Sénégal yëpp ndax non seulement ñu ci bëri génn nañu apporter seen soutien ci euh, Miss Sénégal 2020 bi waaye ñu ci bëri itam génnaat nañu wax jafe-jafe ñu ci mës a dund en tout cas dañu ci lu euh, teewlu euh, Fatmata Diop ci ay leeral. réaction yu ancien Miss Sénégal yi mu ngay wéy yuy dugal bu baax a baax comité d'organisation bu ni mel lu ko wund bokk na ci nag génn yaay yëpp ancien Miss Sénégal 2020 Fatou John mi nga xamante ne dañoo wax ne victime la ci viol mu daal di ci jëlee ëmb Miss 2020 yëpp dañoo génn bu Saint-Louis bi daal di expliquer moom itam jafe-jafe yi mu dund bu Kolda bu maatam naka noonu bu cees ak it bu Kaolack ku ci nekk wax nga jafe-jafe yi nga dund ñenn ñi jàpp ne seen hôtel dañu leen ca génne woon ña ca des ne dañuy dund ci kaw miss yi lee tey jii miss 2016 sax daal dina addu ci mbir mi Ndeye Astou Sall it jàpp ne comité bi waxal na ko lu nekk bi mu gisee ne ay ñaawteef la ñuy def ci biir miss Sénégal 92 Nathalie Dia daal dina wane soutien wam ci miss Fatou Dione ginnaaw ñaar fukki at ak juróom benn organisation bu ni mel mosul am buri bu rëyee nii ñetti édition képp la organisatrice bi yor lu mu jëlee ci Moïse Ambroise Gomis mu détruire liggéeyu génération wu jeune fille yu bare bari tuuma yi ñu teg ci ndoddu comité bi ñu ngi xaarandi nag parquet autosaisiru ci mbir mu ni mel ngir ñu situer responsabilité yi naam bu fekkee ne Aminata Badiane baalu na ak waaye terewul faw mbir yi daal di leer Fadabdou Ndiaye au delà mbirum viole bi ci Miss Sénégal 2020 li gën a naqari sénégalais mooy génnuk ki nga xam ne moo sabab lépp moo organisé wala moo jiitee comité d' organisation Miss Sénégal 2020. ay propos yu scandaleux. Mmh. c' est à dire que euh, kaddu yoo xam ne euh, dangay ngay ndax ki ko wax déjà ndax jigéen la. Mmh. benn da ngay laajte ne kii. nan la ñu ko mën a joxee lu toll ne organisation mi Sénégal mhm. nga xam ne ay jigéen lay dalal ay ndaw yoo xam ne fukki at ak mhm. ñaar fukki at ñaar fukki at ak benn ñoo xamante ne benn moom moo leen mag mhm. ñaar dañu ko jox pour que xëy na euh, mu yiir leen ci loolu nga xam ne daf koy organiser mu mel ne koo xam ne dafa jéppi jigéen ñi nga xam ne dañu dañu leen a violé dem ba jàpp ne viole bu amee ñaari nit la. Mhm. te ki nga xam ne moom moo moom la ñu violé du koy sax wax du ñu wax la personne violée mais dañu wax la violeur. Mhm. ndax li mu doonee crime. Mhm. waxuma Sénégal mais dëkk boo dem boo tiggee viole sax nit ñi dañuy tiit. mu jël loolu nga xamante ne moom mooy viole moom banaliser ko def ko comme si loo xamante ne la këyit képp la du dara. boo ko dee seet moom la def li nga xam ne moom moo dal xale bu jigéen bi euh, heureusement que ne bi mbir yi amee. sénégalais yi tooguñu hmm. nit ñëpp ñaawlu nañu ko kenn ku ci nekk sa kàddu fu mu yegg organisation féminine yi également porté lu combat hmm. groupe yi nga xam ne ñoo nekk sur les réseaux sociaux également porter combat bi te ñu jara jaajëfal lañ par rapport à cela loolu mooy wan ne jigéen hmm. fu ñu ko laalee balaa kaat kenn fekk si na moroomu jigéenam jóg jàppale ko d'abord keneen kuy ñëw fekk si ko ci mais leneen lan la indi moom mooy ñu xool anam gi ñuy organiser ces événements parce que bu ñu waxee Miss Sénégal da ngay représenter le Sénégal partout. Mm-hmm. loolu une personne privée waruñu ko jox muy organiser Miss Sénégal. Mm-hmm. waroon na am tey lëkkaloo boo xam ne dafay dox ci ministère bi ñu dénk wàllu culture mooy suñu caada. Mm-hmm. dox ci nga xam ne mooy promotion touristique di wàllu tourisme ñu fexe naka la ñuy def ba organiser ko teg ko ci ay bànqaas yu wóor yu leer yoo xam ne ku ci sa doom du bokk. sa xel du dal parce que xëy na tey la feeñ mais nit ñi seen xel yàgg na tey ci li nga xamante ne moom mooy Miss Sénégal te lii gàkkal na ñi nga xam ne ñoom ñoo am couronne bi. mais yàq deru jàmbur. yàq vie wu jàmbur toroxal xale boo xam ne 21 ans la am waajuram génne ay ronkañam ci loo xamante ne ñoom ñoo ko organisé mm-hmm. defar ko ba pare taxaw nag comme li ñuy def saa su ne mm-hmm. def ñaawteef def njombe ba pare taxaw di baalu Sénégal je pense que mm-hmm. état war na ci jóg indi ci solution euh, procureur ñu ngi wax autosaisir na ci mais warul yam foofu war nañu dem au delà maanaam lu jëm ci Miss Sénégal lu jëm ci événement yi nga xamante ne ki koy remporter dafay dem organisé mën a teg lépp ci yoon su ko defee du ñu jafe-jafe yi nga xam ne gis nañu ko alors Ndeye Dimet au delà du réseau Siggil Jigéen est ce que jotul tey justement procureur autosaisiru parce que quand même euh, euh, crime la ci mim réew du Sénégal ak yeneen i yi nga xam ne ay ancienne miss génne nañu wax ko est ce que jotul ñu bi ci ay enquête absolument Mohamed parce que gis nga lii dal xale bi nii dafa sulliwaat rek Mm-hmm. jafe-jafe yi nga xam ne jigéen dañ koy jànkonteel saa su nekk lu soxla jëm ci wàllu harcèlement ak viol mm-hmm. te lu ci ëpp dañuy noppi ni pat parce que bu ñu ko génnee gis nga lii nga xam ne Amina loolu la ko tontu. Hmm. wax ko ne buñ la violé yow la neex buñ la sàkkoo yow la neex. Hmm. donc ñu bari tey loolu la ñuy daw ba tax na dañuy dund lu métti te ñu ko nangoo wax. parce que hmm. euh, boo dégloo sax ay kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati na ko. dafa am problème bu grave bu mu soulevé. boo xam ne dañ koy gis ci casting yi di ko gis ci bërëbu liggéeykaay yi. da ngay dégg ñu ne parce que ci ay kàddoom. wax nañ ni Miss bi dafa yaruwul. ma bëgg nag ñu expliquer sénégalais. lan mooy ku yaru. lay piétiner. di la dëggaate danga nga yaru. Mm-hmm. que da nga war a nekk benn farvaloir wala est ce yow tey da war a nekk ñu baal ma ci kàddu gi benn lèche-cul mhm. wala nga nekk nit koo xamante ne nii peut être que fu ñu la yóbbu nga yóbbu fa mhm. donc ay question yo loo xamante ne nii dafa jara sampu parce que da ngay gis keroog rek ñi ngi koy wax fii ak ci commenté Mohamed mhm. am na ci jigéen ñoo xamante ne ñi ngi jànkonteel lu métti mais peut être que ragal nañu ko dénoncer bu ñu toogee woon wala peut être ñu perte seen carrière ba tax dañ leen di jaral ñuy continuer di subir violence yooyu nga xamante ne moom lañ leen di teg donc man dama jàpp ne tey justice dafa war a def liggéeyam ba mu jeex ñu déglu képp koo xamante ne nii jaar nga Sénégal ñu xool lan moo ci dëgg ak li nekkul dëgg et puis itam euh, féliciter aussi tamit la fi ak yaayam ci courage bi nga xam ne ni am nañ ko parce que wax dëgg yàlla yombul métti na nga taxaw te xale bi aussi quoi qu'on puisse dire am na valeur mhm. foofu it ñuy euh, ñuy woo parents yi nañu gën a yar seen doom yi nga xam ne bu ñu génnee bu ñu teg loo xamante ne ni daf leen gën a diis ñu mën ko taxaw mën ko supporter parce que mhm. ci ay waxam laay sukkandiku foofu wax na ni dañ ko booleeg ay naar mhm. mais moom daf leen du mooy wan leen ginnaaw sëgg ci téléphone am su fekkonte ne xëy na bëgg na facilité kon ñaar ñett duñ ko yëg kon situation bi du egg fii di lancer appel aussi au bonnes volontés ñu jàppale xale bi ngir lay war a suuri mu eggale jàngam parce que dégg nga Amina li mu wax nee na amul bac nee na notam yi baaxul donc nee nañ ko ku yaru ma ci tàngal yeey sa gone ngaay donc comme que moom yaruwul tey li mu mérité mooy mu uuf doom joo xam ni amul baay li mu mérité tey mooy mu nekk xale bu jigéen boo xam ni amul avenir mmh. encore une fois dañuy lancer appel képp ku ko mën a dimbale mmh. mu eggale formation génn ci situation yi mu nekkee mhm. lool vraiment dafa nekk demande boo xam ne jigéen ñëpp koy ñaan mhm. mais tamit di féliciter Jali Badiane mi nga mhm. xam ne démb bi situation bi amee toogul benn yoon ci la lancé ci réseaux sociaux yi ab pétition boo xam ne euh, en l'espace de deux heures de temps am nañ presque plus de vingt mille signatures yoo xam ne loolu tey moo tax ba euh, CFAO Motor Sénégal daal di réagir daal di retirer euh, partenariat bi nga xam ne moo doxoon ci digganteem ak mi Sénégal très bien ñu wax ci leneen wax ci génnuk intersyndical syndical bu euh, liggéeykatu euh, ëmb kon wàllug napp gi ak